Sénégal mbokki amateurs yi jàmbaar production ñëwaat na ñun ci journée bi am solo waaye daa boole ñaari ndaanaan ñaari jàmbaar aarafaar borom ndakaaru borom Grand Dakar Biscuiterie mooy war a laalee ak ki nga xamante mooy borom capp cappaat soos soosaat muy sos bu dóor dóoraat dina dox si diggante ëllëgër bu daal di fort ak bébé garga bi nga xamante ne nii mooy bàyyi ko dóor dóoraat waaye yamul foofu dañ doo daal di indi Lat Joor ba ko di Balla Gaye war fa laale ak Bouba bu Malika waaye ki xam ne mooy jonaa bi dina fa laale ak fañi waaye papa bari bari dina fa laale bébé Modou Lo Jama war fa laale ak jaasi pël mbul ak ki nga xamante ni mooy bébé waali danañ fa daal laale waaye ki nga xamante ni mooy deux heures war fa laale ak confiance waaye caatu mari ak caatu jolof dinañ fa daal di jàmmarloo ki nga xamante ni nii mooy bébé ak papa sow dinañ fa laale waaye mbokk yi loolu le 8 octobre 2023 lay am fële ci arène nationale Ada Fass Zos cey jàmbaar production jaar ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba ndigal kala faal bu baax a baax di nuyu njabootu Cheikh Ibra yëpp waaw njabootu ndigal tamit ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñokkal kaddu waaw maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp mhm. waaw di nuyu Cheikh ndigal kala bu baax a baax faal maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax a baax yaa ngi yaa ngi nuyu ñëpp Papa Ndiaye soo baaxul nga jege si fii rek euh, aada yaakaar naa ne fi mu nekk nii maanaam li olof naan lay jeex na sa digganteeg Zoss ay fan yu néew moo ci des bu soobee suñu borom nga joggé ci Zarko mu nek ko xamné mo la jitt won ci lamb ëpp la expérience ñu yaakar na fa ngay yëm nga ñëw jëlat keneen ko xamné manam maanaam bobu la am zos mi nga jël lan moo tax aada jël zos karma làmb la rek lamb moo ñu boole. waaw daal maa def waaw dafa def ay jéggo tok xaar man ma def ay jéggo fekk fu mu nek lool moo ñu boole mais du leneen. aha lool mo leen bolé lool moo ñu boole lamb làmb moo ñu boole. aada xam zos. bu baaxa a baax a baax xam ko bu baaxa a baax baax. lañu mën a wax ci Zoss. na bëre mais instant dafa fekk ne dafa xaw a dafa xaw jël âge dafa xaw a instant te man xale laa quoi dama si toll. daa màgg waaw. man dama si toll nii quoi. te moom instant bi moom amatul lu muy prouvé si làmb. waaw loolu yi man man la laaj man la war si làmb quoi. la war man la war si làmb. mukk si àdduna tolatuñ fi maye dara fi mayete dara ci lamb ndax té war nañ suñu bop ñëpp xam xam ñu instant bi dañuy lamb dañ doon dañ doon lambant mais instant bi dañuy lamb légui da ngay lamb légui damay lamb ak jos bo lambé est-ce que yaakar nga di ci gën parce que sos bo xolé fi mu jaar bari mu bari manam bari nak mu ko ëpp bari mu tollo ñu mu nek mbeur waada mom mbeur mu mel man da waaw bàyyi ba le huit rek le huit dina xam ne ni moom xale la xale la ko sekkal man damay damay fonctionné ba temps bi jeex. te Tégo moom na na entraîné cardio bu woowu. la laa cardio na entraîné cardio gis naa ko def deux rek soo toog non laa mujjee cardio moo koy daal ak entraînement bu wóor. Hmm. te damaa wóolu li ma liggéey. kon damaa liggéey si laa mujj damaa liggéey. liggéeyante mu damaa liggéey combat bi waaw damaa nëbatu doon liggéey dama nëbatu quoi doon liggéey lu mat sëkk lu hmm. bëri doole parce que daa am fi ma jugee am fi ma bëgg a dem instant hmm. yi il faut ma wane sama bopp waaw si waa ji nag laay wane sama bopp am fi ma bëgg a jëm si làmb mais dégg nga yoo xam démb Zoss parce que nee na moom maanaam yow yaa am temps booy maye bu bëri parce que yow xale nga moom amatul temps moo tax combat bi mënu la cee may dara wax na ko sax xaw ma pim pan dóor na ay góor waaw moom daal boo bëggee dégg-dégg moom naru laa may jàmm. amul problème amul problème ay waxam foofu rek la yam si micro beeg média bi nii wax toog di wax ni si média bi daa neex man bu ñu jaaxaar loowee moom na ko dëggal rek lu mu wax noonu na ko dëggal. xeex boobu muy wax. déggoo ma de na ko dëggal wax naa ko après lamb ji événement la ñuy bëre te incha allah rabi après lamb ji man moom la ñuy bëre. yaa ngi jëf ñaar yëpp dóor def. kon combat bi lamb jeeg lamb ak ebema bi yop buñu ñu bi dañuy bëru wat ebema man ak mom waxna ko. da nga koy dool mu daan yépp moy daf may dool ba ray ma. moom mooy ray ma rey ko. la la ray ma ray ko. waaw moy daf may doon ba rey ma man bala moy dool ba ma dé man ma dool ko mu dee. Ada ne nga xam nga sos. sos sét na mu bëree Papa Sow seetaan nga combat bu. waaw boobu won ngi dem job bi ma ko tok ci kaw train bi. waaw di ci di si waree Papa Sow. Hmm. waaw door ko ja yow ñun ñun dañu mëna bëré wun wuñ xeex ñun fi lañ dëkk jahal dara jaaxal ma ci làmb lén rek moo jaaxal muy sama suba kasse sétam nga sos ak isaafu bi muy daan isaafu déggoo ma ré man dara jaaxal ma ci làmb sama suba rek ñoma jaaxal ci làmb sama fit foko ko natt ëpp na ko fa sama dofay foko ko sama mëna bëré foko foo tamit ëpp na ko sama seng-seng lepp man làmb seng-seng moo mo mo tax ma ñak làmb mais du dara hmm, sama seng-seng mo bëri té lamb ji ñëw ni inshallah allah seng-seng bobu day raw noté isaani supporter gars yi ñoo ma ko gën a namm de jubilé bi nii. Hmm. ñi ñoo ma gën a namm bëgg a yuuxu. waaw. yuuxu bi ñoom ñoo gën a namm. Ah te balaa ma koy dansé gën génn stade te incha allah noonu lay demee balaa balaa vingt et une laa la wax gars yi génn stade bi jubilé ba fii. nga libéré gars rabbi. combat bi manam lu mëna def ci carrière ba am ko am ci ndam wala lenen am ci parce que tamit ñaari dugg benn genn lañ wax ndam ñaari ndamay dugg ne Mana benn ndam moy genn manam lu mu manam lu meuna defat ci carrière ada surtout carrière lu ci combat bi meuna def ah combat bi ni tay jos ñun pour un ak mom c'est tay dama prouver bëre ak mom jos to mos ñu ñu sa classe mo jur ci lamu fofu tay ji comme bok wax ma bëre mom sama sens la ma bàyyi samay samay morom bëreg Zoss Zoss sama mag la moom jiitu si làmb kon ma bëreg moom sama fierté la te gëm naa ne incha allah rabbi kon li may wax je tag je kon je gañ Zoss dama koy daan da nga koy incha allah rabbi ma daan waaw du cadre dara si entraînement laa ko teg ak si loo xam ne dama kaa gëm mu nekk si man damaa xam ne ne man làmb bokk bi làmb ji paas waaw damaa xaw a juum rek moo tax mu demee noonu waaw damaa xaw a juum juuma damaa xaw a juum si bëre waaw moo tax mu demee noonu mais dañ koy sante suñu borom mais buñ jëm nii dañ xam ne xale maagara te dañ ko yab xale maagara dañ ko yab allah Serigne man dafa am question mu nga mais amu woon temps pour mu tontu question boobu parce wax nga ko sànq dafa dugg si benn classe d' examen mu échoué classe googu digganteem ak Zarko mu jógee foofu am ay jafe-jafe yu ko dab si diggante bi te loolu ak àddina ñoo ànda ma koy laaj moom si mentalement est ce loolu du am lu mu wàññi si digganteem ak Zoss si combat am la dafa fekk ne sport boo koy def sans lamb sans dara sportif boo ko nekkee. kon boog bul xalaat nekk sa kër wala nekk si mbedd bi sport boo ko nekkee yaa ngi sport. sport ngay xalaat. sama coach moom moo ko jàngal. waaw ma doon am problème ni dem entraînement di ko xalaat ma ne ma fii boo fi duggee fàtt fàttali si biti nekk si biti fàtte ko kon sama lamb ji ma jëm. fi ma jógee fàtte naa ko sama lamb laa teg sama bët. waaw loolu mooy xel sportif. Ah, au niveau quoi. Mhm. au niveau. Mhm. tey làmb ji ma jëm nii. Mhm. <laughs> ñee da ngaa jóge damaa jógee si ay tolof tolof kon làmb ji ma jëm nii yow di nga toog ree ree barki borom Touba incha allah. jaajëf ëjëf moom léegi trois semaines yu mu wax yi si nga commencé entraîné prego. daa jum moom moo entraîné commencé entraîné trois sama deux sama moom moom mooy naxaate mooy dafa demoon États-Unis mu ñëw États-Unis ñëw toll ni mu toll. man bu ma demoon États-Unis ñëw dama dara. nii teeñ teeñ la fa jëlee teeñ la fa jëlee mhm. man xale bu ndaw laa fi laa toog di liggéey boobu léegi muy dem États-Unis di ñëw mhm. man ma toog fii di liggéey man trois semaines laa liggéey bis baa mhm. incha allah bañ jàppante wala mu dëggal boppam en humanité ku nekk xam ne ni ndaanaan la champion la baaw ko wax na ko léegi si te ne ay mbir yu ma jot daan bëri ku mel ni kooku expérience bu nekk si moom yan comportement la laaj le huit ndaanaan du la feeñ man la ko fii yëpp yaa sama naanaan mooy feeñ a bëre ak sama gëm-gëm déggoo ma de lépp yaa koy def déggoo ma de kon sox mu am si la wit déggoo ma moom daanaanam waaw dafa weesu man sama ndaanaan moo ñëw. waaw mais li macha allah combat bi parce que nee na combat commando yi moom nee na victoire bi commando yi la koy may militaire yi. mënul metti parce que lu metti lu metti la bëgg. te na lu ah? moom daa toog ay daa toog ay at. waaw te man ah. compétirul man 2017 ba léegi maa ngi compétir kon maa ko compétition moom tey jii ah, hmm. dafa am ah, te rep si géew force day manqué repère si géew ndaxte bu mu tëlee bëre yàgg bu mu mujjee bëre yàgg na hmm. toog ba léegi man maa ngi compétir kon moom amul lu muy diriger si biir géew bi du la nekk si dara déggoo ma de fu mu dox ma daw fekk fa te du ma koy jàppee dama koy daal. mais affaire commando yi ñu lool bëgg a jaay nag. déggoo ma xanaa amul problème. moom na dem na dem ba fu ko neex ànd ak gars yi ñëw le huit dara du feeñ dama koy jàpp daan ko. koy jàpp daan ko waaw. aada ci bëre dàq bëre sos lay waxee ëpp doole sos. dàq bëre de si bëre si xeex bu xeexee ma dóor ko mu këpp bu bëree ma daan ñaar lu mu def daanu. lu mu def daanu. kii la jox na ma ndam li ba pare lu mu def daanu déggoo ma ne naagu ma nag de mais lu mu def daanu. dama ko gëm quoi te làmb ji kon lu ma waxoon rek sama ah. làmb bopp la ba pare ah. waaw daa amaana daa am lu tax mu nekk sama làmb bopp mhm. waaw te gëm naa ne suñu borom mu ko tàlleen sama loxo na mu may ndam te incha allahu rabi na mu may ndam si kawam mhm. làmb ji dama ko soxla Babacar du may wax ay dama ko soxla da ngaa soxla lan moo tax aada a soxla daa am lu mu demee moo tax après lamb ji incha allah do ko wax waaw daa am lu mu demee quoi amana fi yalla rek fi né wa da ngay sabab lu mu may la mhm. wa man mom la maa sama loxo mhm. diko ñaan mu may man dam ci kawam ci kaw zot jël bu leer nañu Ada ay supporteram am mu donte jafe-jafe amono na mais daa mel gaay yi da melni dal yow lañu am de bu ma gisee ko mm, jafe-jafe musul am ay tolof tolof la won rek ay tolof tolof la won rek mhm. amana lepp nak suñu borom la dal moom la neex de bu ko woon du am amoo ay supporters man ay copains am ak ay xarit waaw fii àdduna la rek sans làmb man ak ñoom dañuy dund nice quoi waaw làmb nii rek boolewuñu na ko làmb la rek ku nekk kan du kenn mais amaana hors làmb dañ may topp ndax de man ñoom ay lépp lañ dañuy demalante daal waaw samay xarit samay rakk lañ ñii samay mag lañ voilà jox na li mu la laaj. le moo ma ñor. bi sifflé génn sama diggante moom. le huit moo ma ñor sa waay déggoo ma le moo ma ñor arbitre bi sifflé génn sama diggante moom. ñun leneen ñoruma quoi. mais li mu la laaj moo ko le huit ma hmm. kenn mënu maa wax loo. mais yow déedéet kenn mënu maa wax loo le Babacar ah, moo la ñor Babacar ah, waa jàmbar production ñoom ñoo tëgg combat bi ñu structure boo xam ne yàgg gut ci làmb mais muy def ay affaire doy de waar tey structure jàmbar production boobu man sa bari bi lan nga leen di wax waaw waa jàmbar dine waaw moo loolu leen nuyu rek ñoom Mansour ñoom Papa Sow assurance yi fa ne maa ngi leen nuyu bu baax a baax dine incha allah rabbi le huit lu ñu bëgg a incha allah ko gis si làmb ji ah. muy ambiance ak supporter ak incha allahu rabi bi gisee ferme la ñuy def si stade bi. Hmm, incha allahu rabi nañ ñoom ñoom nañ teel man àdduna moom ay supporter. Hmm. <laughs> man àdduna moom moo ñëwee stade barke am na ñoo xam ne man damay may ñii est ce que ay doomu aadama lañ kese. amaana day man est ce que dama ne ñi amul sax ay rax. barki borom Tuuba billaay wallaay talaay ma amaan nag lépp suñu borom la du man waaw hmm. ah, man ma may dara sama bopp yàlla moo ko dénk rek yàlla moo ko dénk daf ma koy gën a dénk ndaxte dama ko bëgg a damaa bëgg a làmb. mbooloo moom xalaatoo dara wàññeeku day gën a yokk te incha allah rabi fi ñu jëm dañuy chaque jour léegi dañuy jubilé di ñibbisi ba fu ñu jëm ba fu ñu jëm. Ah. ba fu ñu jëm incha allah. ok Babacar léegi balaa ñu ñëw sa lutte bi boobu macha allah ñoom ñaar war nañu jëflante waat a war nañu jàkkaarloo war seen jàkkaarloo mu mujj. le 29 incha allahu rabi lan ngay wax si loolu Ada Fass. waaw le 29 incha allah maa ngi woo ñëpp rek mhm. gaa yëpp maa ngi leen di woo. super ndaje bi waaw. dina boobu mooy daj dëpp gi boobu mooy làmb ji le 29 mooy làmb ah, nekk le 8. le 29 mooy làmb nga teg fan. le 29 laay commencé jubilé ba le 8 le 8 mu ñëw teg fii suñu ataaya bàyyi ba heure làmb ñu tax ngemb di fecc ba esaat feccaat ba ñibbi si incha allah. Ada Fass lan la la si diggante bi Babacar. mais communication dafa changé. confiance bi de bëri na. ama denk ñoo dara amaana suñu borom rek ak lu ma liggéey ak lu ma waaw xam nga rek yàlla mooy dénkee waaw te instant bi am na fu ñu teg suñu bët fu ñu jugee loolu mënu woon ñàkk suñun waaw nit mhm. mhm. mhm. ki tolof tolof buy ñëw si yow day ñëw force waaw mais buy dem da ngay doo ko sax xalaatati barki Serigne Saliou di ko ñaanal jàmm bu baax a baax di ko ñaanal jàmm weesu ya, ya, damay tontu rek tuur ci mbalit yóbbante démb dafa am kat kaw ñëpp na zos boobu baaxatul ya, ak xeex ak dóor ko soog may problème nga ne bopp bi baaxatul nga bëgg ma dóor ko ah moom <laughs> moom si boppam moom yow Zoss mënoo may indil problème yow mënoo nelaw esaat nga bëgg ma dóoral la nga nelaw man doo mën indil tuntu garaaw ma. ba non ba ama pes ko rek am mag la bu ko ba ama pes ko ba ama pes ko. te garaawul ba ama la esaat bañ a ba ama pes ko jàpp daan ko garaawul. mais aada ñi ko wër parce que dafa mel ni aada ci biir staff bi. dañ daan gis ay tët yoo xam ne gisatuñ leen. daa mel ni affaire bi defaraat la raxasaat la wala. jublu non dañoo def ni korokuraat ne Babacar yaa ngi may dégg. maa la rek. wolof laa wax waxu mag la adduna la rek. adduna la rek. waaw adduna chaque jour ak ay ay jàngat. adduna day dox. dañuy dox ànd amaana ñun amuñu temps taxawaaloo fu ñu jëm déggoo ma ne daa ba am fu ma bëgg dem si làmb maa koy dee dee naa ko te incha allah foofu laa jëm si làmb man dugg ma si làmb pour defantu nii damaa dugg si làmb def nii am li ma jëli indi ko fii fii mosuñu ko am te dama bëgg fi dama ko dama ko bëgg a indi te gam naa dama ko fii indi déggoo ma ne lu leer nañ dam ko fii indi jarul sax nii nii amaana nag loolu dafa nekk suñu xol quoi te gëm nañ ko incha allah rabbi Uh-huh. looy wax say supporter looy wax supporteru Zoss. Mm, très bien pour bés ba ci wàllum non à la violence parce que jàmm la ñu. non moom moom amul supporter moom amul supporter moom sax sama sax sama supporter la moom moom moom sama topp ko moom sama moom si boppam man lay topp. man lay si man lay man lay topp Zoss ma combat bi pour arranger ma pour ma yoon. di woo ñëpp si laamu ji la wér incha allah maa ngi woo ñëpp di woo adduna bi yëpp. di woo ñëpp du ma limee damay juum waaw nag diaspora bi tamit ah, waa Espagne. <laughs> waa États-Unis ñëpp maa ngi leen di bëggee billaay walaay di bëggee waa France maa ngi bëggee ñëpp duma limee rek e waa Palma Pocho ah, sama père maa ngi koy nuyu bu baax Palma Mallorca waaw ñoom Poms ñoom Mbër Blende waa États-Unis doom day waaw Mansour suñ doom day moom day ba mu jeex